ak défendre bu rëy bi ma ko fi défendre ak nday yirim dama bëgg a saaga nday de te bëggaguma saaga ndax damay bañ nday ami Touré yéeg ne ma pambaay dal leen kali muy def ak regaaru bandem bii ay nabu lay nabu lay bu non mënumaa gëm lii kali fi ne sama tànk yi mi ngi mel na lu paralysé parce que xam nga Seneweb wax na ñu foog ne dañuy fen waaye libération Nabou Leye sañ nga ma toroxal ci diggu sénégalais yow Nabou Leye sañ ngaa rey Aziz Dabala yow Nabou Leye yow sañ ngaa bokk ci ñi rey Aziz Dabala Nabou Leye loolu du mën a am bu ma innamaa endrament kolojement plongé reprise ci sa sali bu ko may laa ilaaha illallaah mu ñëw nabu sa ngaa def lii laa ilaaha illallaah nabu de bés boo reyee Aziz Dabala dinañ la sajjal yaag seen waa kër sajjum langu laayi fu góor jigéenu un an nabu lay caga Aziz Dabala yow nabu nabu lay yow sañoo lii yow sañoo lii yow boo jëltee Sénégalais yëpp dañoo war a bind pétition ñu ne nabu nañ ko tëral ci mbedd mi pendre ko yow perpète lañ la war a tëj yow su dee yaa jëlti yow dañ la war a tëj perpète ñi jam sax tëjee na oyof waaye yow perpète ba pare dañ la war a bu wax loolu mbaayam sagal defar ko ba àddina bépp xam ne mooy nabu lay kookoo la rey Aziz tey gisuma ko yombal xiyaam waaye am na lu ko metti Aziz a souffrir parce que li mu souffrir xale bi tali man boo gisee ma saf ci kaa bi man dafa mel ni maag Aziz dañoo bokk kaa nee naa la dix-neuf millions Sénégalais yëpp jamaa fuu da saa ñu dem teeri ji Dominique ay xale ay mag man yoon nekk ci lu ma di wax ci waxu Sénégal mais ma génn wax ci waxu Aziz dafa touchant dafa te dafa metti Kaliphone Kaliphone Aziz moo yey xeex ba dee soo gisee ñu ne kër gi jaxasoo na soo gisee ñu ne deret gi dafa tasaaroo Kaliphone mënoo imaginer koo wóolu yaakaar place mu génne paaka ne dalay rey Californie ngay dëgg da doo ko bàyyee moom da ngay sippu il a souffert soo gisee ñu jam waal yi xale yi dañoo souffert parce que ñu ñu ñu bëgg ñoo leen rey ñu ñu yaatal ci seen bopp ñoo leen rey moo tax ñu jam leen jam yu metti yi ba pare ñi leen rey ñooy doome ñi leen rey ñoo soxor ñi leen rey ñooy imbécile ñi leen rey ñoo nangamtaan na bu lay bu dee yaa ko jiite na bu lay bugg laa saaga yow nabu ñu ne da nga ceeb keneen xam ne Aziz dund ngeen dundandoo ko nga nekk ci sa ndey jooju toog naan na boo ma dimbali sa ndey jooju toog naan na boo ma jëndal sambara kuuse du dama ne su du woon Aziz Dabala sa yaay du taxaw di tiitaru naan na boo ma jëndal sambara kuuse parce que Aziz la. Nabou Leye dey Nabou Leye nabu Leye dey nabu Leye dey Nabou Leye dey juróom-ñaari yoon laa ko wax Nabou Leye bés bu ma toroxalee ci kanamu sénégalais yii ak défendre bu rëy bi ma ko fi défendre ak ndey yirim dama bëgg a saaga nday de te bëggaguma saaga ndax damay bañ nday ami Touré yéeg dama pambaay dal leen kali muy def ak regard bandem bii ay nabu lay nabu lay bu non munu maa gëm lii ne sama tànk mi ngi mel ni lu paralysé parce que xam nga Seneweb wax na ñu foog ne dañuy fen waaye libération Nabou Leye sañ nga maa ci diggu sénégalais yow nabu Leye sañ ngaa rey Aziz Dabala yow Nabou Leye yow sañ ngaa bokk ci ñi rey Aziz Dabala Nabou Leye loolu du mën a am